asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi dellusiwaat ci naafile yi ñuy jëlee ci xulatul ayni sëñ bi dafa wax ne guddi ñaar fukkeel ga ci weeru koor ku ci julli juróom ñetti raka raka bu ci ne mu jàng ci fatiha benn yoon ak inna anzalnaahu benn yoon jàng xul huwallahu ahad ñetti yoon dees na ko bindal tuyaaba yu toll limu mbooleem lu nit masa def ci lu baax te dees na ko jéggal mbooleem bàkkaaram yépp yu njëkk ak yu mujj te dees na ko musal ci lëndamuk bàmmeel te yonente ba sallallahu taala alayhi wa lay àndal dëkk àjjana jërë ngeen jëf